xel la. Mhm. soo la rek. la. Mhm. wan sa waay la la rek xool nag la dee ma ne xaaral ma xool la si rek laaj la yooyu. dëgg la dëgg la. moom la broda a fa defuñ dara ñu ngi bu baax. waaw loolu la man daal lu ma la doon bëgg a laaj ci programme bi rek yooyu. kan la. fan bu ma doon bëggoon laaj ci tool bi rek ndig ni ko. Mm-hmm. waaye dama doon laaj ndax borom high blood pressure yi ndax ayut si ñoom. ah <laughs> du ko yaa yi ne benn fan bi ko lekk rek <laughs> du ko yaa. ah yaa si dara. <laughs> yaa ngi nuyu jàkkaarloo yow de yow ak sa smile yu rafet yi. jërëjëf. ok baara jërëjëf yooyu. kii la <laughs> man laa tooy tubaab jaañ laa tubaab <laughs> du ma ko faale na jaañeen bi moo tax tubaab kool ma di ko béggee bu baax a baax a baax tubaab nekk foofu noonu ca Mile 7 radio Gambia ñooñu ñooy suñ kilifa yi ndax radio bi jamono ba moo taxaw yàgg na lool tubaab mu nekkee ko xarañ ko baax tubaab jaaj ma di la ne jaañeen bi moo tax rek mu doon nëbbu waaye nag di ko ne mis naa la lool te noma naa la te xam naa ne incha allah dinañ gisee waaye ni ma leen ko def faral di waxee damaa gën di am ah, bégee na ki nga xam ne mooy aado aado nekk foofu noonu am ah, te Sweden ak njabootam gi yëpp fàttewu mu si ñoom coro doomam yëpp maa ngi leen di bégee ah, di leen wax ne ren noma nañ leen holiday bi neexoon na lool sista aado ba tax na maa ngi laa bégee bu baax a baax ba ko nga xam ne mooy aadama jógee fi bu yàggut nekk foofu noonu ca Stockholm di bégee sista Sadio bu baax moo alaaji jëkkëram fàttewu ma si suma doom bi di xaar oncle Moussa maa ngi laa bégee fàttewu ma si ci antibati saa yu nekk dama leen di ñaanal fan ak wér te la euh, oncle Moussa noma nañ la bu baax a baax a baax réewi tey li ñu dese woon ci waxtu ñu ne geex na takk waaye saa yu nekk balaa ñoo tëj programme bi ni ma leen ko dee faral di waxee dañu bëggee jànke bu baax jigéen la tey mu nekk jigéen ju mun góor jànke nekkoon na téye ñetti caméra yi ba si ñeneenti caméra si yëpp jànke maa ngi laa ñaanal na loxo bi gën a barke waay nag di bëggee ki nga xam ne mooy Cheikh Dia fàttewu ma si ñoom Moustapha ñoom ki nga xam ne mooy Keba Demba Mary Euh, ki nga xam ne ni mooy comfort fàttewu ma si ki nga xam ne mooy jàmme muy karafa ma di leen ñaanal bu baax a baax ba mais balaa ma dee tëj programme bi foog rek ma bëggee suma maam di imam ratib di ko ñaanal te xam naa ne maam booy tamit saa yu nekk yaa ngi ñoo ñaanal fa maam di ajaratu daado sisika ma di wax ne ngay ñaan rek incha allah dina baax waaye nag di bëggee suma yaay di ajaratu yaa sey njaay saa yu nekk yaa booy di la ñaanal rek fan ak wér fàtte ma si ñoom oncle sëriñ xale yëpp nekk foofu noonu ca kër ga waaye nag yu nekk balaa maa tëj programme bi hadi si la njaay dama koy ñaanal fan ak wér moo njabootam waaye nag ki nga xam ne nii nag moo tax ñuy dal di def ba baa sañse beeg musóor geeg yooyu noonu waa Sambeen la waaye mbuba bi tey anti Thian Kan Jallow moo ko ñëw dal di dal di def ba mu baax waaye réewi Gambie ni ma leen ko def faral di képp koo xam ne bëgg naa bokk ci programme bi ekkati sa téléphone nga call ma si 36 triple five six one three six triple five six one di bëggee aji Ayda Diop saa yu nekk di ko ñaana nag tey ni ma leen ko def defaraat waaye soo leen gisee ma toog ci télé bi ñeme ko aji Ayda moo ma tete bi ma am fii kon aji Ayda dama ko ñaanal muy Ayda Diop yal na kaalaam gi gën yaa am yàgg ci boppam bi te it ñu di ko fayal muy dem at yu baree baree di aji maaka aji Ayda loolu rek laa ko ñaanal ndax moo tax ma ñeme tey télé bii nii di leen dig dajee nag incha allah bu ñu ko yàlla mayee fekkee talaata bii di ñëw. ak yeneen façon yi tooga ci programme yi bi ak seen xarit maam jeg jërë ngeen jëf comme suñ mbokk ni ma leen xew woon gis ngeen tey li nga xam ne moom la mu ndaw tooga waaye mu ngi wax ne lii moom lan la ni pooj eeg la pooj eeg la waaye mun de plat sous de plat mu nekk lu am solo tooga bu gaaw la te it neex na tamit kuy ndogu it mun nga koo ndogoo sooy reer ta ko waaye ndéewal laa ko gën a foog tamit waaye ndéewal bu nar a diis a ngi nii nekk tooga bu am solo mu ne soupe de la tooga lii tam mu nekk pooj eeg bu bokkul façon nit ma ni ma ko rek mun ngeen koo foog ndéewoo mun naa nekk tamit reer waaye boo ci def rek dina àndaa moom ah, mun naa ndaw nga tooga lu am solo ma bëggoon laa laaj nag bii moom soupe de bii nii mu nekk lu am solo te it gis naa ne tooga bi jaar na yoon. waaw waaw maam am na solo baax na ci yaram tam. parce que comme ma leen ko waxee diw nañ ko moytu. dëgg la neen diis na waaye nag nekkul ne bis bu nekk lii moom time to time koy def te baax na ci yaram am na sipa-sipa am na nen am na yëpp waaw mi ngi suji teebul naax pompiteer lekk boo xam ne dangaa to waaw dama faraay suma soos ba pare door a toj nen bi ki biir waaw loolu ñu di la gërëm bu baax di leen fàttali ne yéen a ngi seetaan seen programme bakku bi saa su nekk Mamou Ndaw Cissé saa su nekk dinañ ñëw jàkkaarloo yéen fii ci GRTS képp koo xam ne bëgg nga bokk ci programme bi rek dafa 00 220 905 00220 4375 905 mbite 4375 905 mettez 00220 437 L'actualité nationale et internationale de la semaine, suivez chaque week-end le journal en français sur votre télévision nationale GHS. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن